bisimilahi rahmaani rahim man maay Adja Yacine Ba di magi Cheikh Tihami Niass ak Seyda Safiyatu euh, suñu yaay mooy soxna Ami Dieng suñu baay mooy Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass ñu ngi sant yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala julli ci sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant Mawlana Cheikh al Islam di sant suñuy waajur génn àddina mais ñu koy sant bu baax a baax a baax ndax awale nañ ci yoon loolu ñu bàyyi aw li bëgg ci aw ñun ñëpp ñu nekk benn Cheikh Thiam moo topp ci man ndax euh, li ma war a wax ci moom bëri na loolu macha allah am na yar am na teggin jox na ma cër ba sëkk ba tubaarakallah ni ma mbay toogee woon rek la toogee waaw yaatal na ñëpp ñëpp la yaatal ci boppam yaatal ñëpp ci kër gi tubaarakallah macha allah li fiy wàcc ci nit ci awsa ñu jóge Tchad ñu jóge Soudan fa tubaarakallah kon nag yal na ko yàlla yokk ba mu ci barke baayam gàmmu gi nag tubaarkàlla ñu ngi sant yàlla neex na torop waaw nit ñi ànd nañ ci jàmm lépp neex na ni ko bàyyi bëgg woon noonu lañ ko defee ànd neex na torop tubaarkàlla j'ai pas beaucoup de choses à dire waaw man fii laa man a am ndax tiyaa mi mën na yeggale yëpp dama doon ubbi rek après moom mu yeggale ko moo ñu yàq daf ñu dafa meloon ni ñun ay doomam lañ man ak doomi sëñ Cheikh Mbacke Gaynde la wallahi lazim su ñëwaan ci kër gi su ngoon jotee mu ne sama yaay ami jeng mu ne ko ñas mu ne ko wol ma yaasin ak soxna jee mbàkke soxna jee mbàkke mooy doomi sëñ Cheikh Mbàkke ngay defaan la demee dinañ toog ci saal bi mu tëdd ci lal bi léeg-léeg mu xool ñu waaw léeg-léeg tamit ñu def ko yëfu ceeb doole ndax léeg-léeg dañuy siislante maat soxna jee waaw mu ne waaw soxna jee yow yaay euh, sëriñ bi wala yaasin mooy sëriñ bi ma ne ko man mii maam maa ngi sëriñ bi soxna jee moom mooy ceeb gi rek mu ne du ko dégg bëgguñu lool fa tubaarakallah man Yacine ba damay wax suma dëgg laay wax moo ma gënal sama baay ndax li ma defal sama baay defal ma ko ci àddina fa ma tegoon sama baay teguma ko boole ma doomam ku ñu wax Cheikh Adi Ibrahim ma am ci benn doom bu góor muy Mouhamadou Lamine mi ngi North na foofu la nekk euh, aux États-Unis man mi sax aux États-Unis laa nekk dama ñëwoon rek vacances seen ñëwoon doon dimbale sama yaay moom laa doon tey keer ndax mag la woon tey euh, war naa nekk toujours ci ba mu génn àddina yal na ko yàlla yokk leeram yal na ko yàlla yóbbu ci àjjina yi gën a kawe ak képp ku fa fekk ñu ngi sant bu baax yéen tamit ñu leen di sant ndax ce que vous faites là c'est très important dinañ ci xame lu bëri ni ñu bëri dinañ ci xame lu bëri waaw ñu leen ci sant di leen gërëm maa ngi lay jox nag Cheikh Tidiane mi moom mu yeggale waxtaan wi waaw ndax muy sëriñ bi. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani <clears throat> alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa asxaabi wa sallam eh, mbokk julli di mbokk taalibe yi fu mu nit man di nekk ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen ndokkeel ci weeru tedd yi ak ci bésu tedd yi ak ci judd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci ndokkeel bépp julli di ci ndokkeel suñ bopp eh, di sant yàlla bi mu may ñu fekkee ko fekkee at ko di ñaan yàlla yàlla may ñu ñu fekkee ay gàmm yu bëre bëre bëri ci barke alxuraan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gàmm gi nag alhamdulilah rabbil alamin dugg nañ ci bismillah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabbil alamin eh, mbokk yi nga xam ne ñoo jógee ko lu ñuy wax ay Soudan ak Tchad ak Mauritanie ak Mali ak Burkina Faso ak eh, ay Cameroun ci Afrique gi ñu nekk Gambia muy fépp foo xam ne fii itam euh, jullite nga fa wala bépp réew boo xam ne bii mi ngi ci Europe taalibe jóge ko nañ fa ñëw fii ci gàmmu gi te dara taxul ñëw fi lu dul yàlla ak yonent bi Mawlaana Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhu pour ñëw feddali kóllëre gi xam ne gi moom la seen baay ak seen maam yi seqoon ak Mawlaana Cheikh Ibrahim euh, bokk ak moom bànneex bi nga xam ne bii su weeru ter woon baay dafa daan wax naan an yandi ibrahima daa xilaaluhu hilaalan rabi naazirina jamaaluhu daf daan ndokkeel boppam ci weer wi nga xam ne mooy weeru yonent bi di ci ndokkeel tam bépp jullit alhamdulilah taalibe yi ñëw nañ def nañ ko ci jàmm ak salaam ñu ngi wax alhamdulilah rabbil alamin delloo waxaat alhamdulilah rabbil alamin eh, ni ko sama mag ji waxee nag alhamdulilah muy Seyda Yaasin ñu ngi ciy ndokkeel bépp jullit di ndokkeel tam kër diine yëpp moo xam muy Medina Baye moo xam muy Touba moo xam muy Canaba moo xam muy Laye moo xam muy Ndiassane moo xam fépp foo xam ne fi daal jullit nga fa nekk di wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen ciy ndokkee alhamdulilah man nag sama wàllu bopp alhamdulilah nga xam ne lii moom laa bëgg wax ci gàmmu gi sant yàlla bi ñu ko yàlla ma ñu fekk ko jàmm ak salaam tal ko man ko waxta wax dëgg yàlla année yu bëri maa ngi woon côté Darfour ak Tchad bi gàmmu gi desee di jours yi laa ñëw euh, yàlla lépp sant yàlla la ci sant yàlla la daal alhamdulilah yoo xam ne bi <clears throat> yàlla def nañu fekk ko jàmm ak salaam alhamdulilah ñu ngi ñaan yàlla gàmmu gi nga xam ne gàmmu nañ ko ci jàmm ak salaam <clears throat> ak ndox mi ci wàcc yàlla def ko ci réewum Sénégal def ko ci réew bépp réewum jullit ci zaahir ci baatu yàlla wàccul ñu naata mu bëri ci barka alxuraan ci barke yoon baarakallah alhamdulilah rabbil alamin moolaana Cheikh Ibrahim daanaka su fekkee dañuy wax ci moom dinañ wax ci moom tuuti mën nañoo wax lépp parce que nit la koo xam ne kii yar na njabootam ci yarin boo xam ne bii yare diine lislaam la ak topp yonent bi ak bëgg Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu daan na def su xew jotee moo xam muy gàmmu <clears throat> moo xam muy tabaski moo xam tamxarit daan wax naan guddi yëpp guddi bi la sallallahu alayhi wa sallam daan na def euh, su gàmmu yi di waaj ñëw kenn ku ci nekk ci njabootam dina yëkkati daanaka dàmp yi de jox la ko soxna itam dina yëkkati li nga xam ne moom mu war seen diggante ñoom mu jox leen ko alhamdulilah euh, loolu nag ci la ay doom nekk muy ku ñuy wax euh, El Hadj Abdoulaye yàlla ko yàlla xalaal na ba ni mu demee Cheikh Ahmed Dame ñëw Cheikh Ahmed Tidiane ñëw yàlla leen yàlla xare aljanna ba suñu xalifa bi nga xam ni mooy xaadimul umma nekk fi moom tamit doxalee yoon woow ba gis nañ taar bi nga xam ne bi moom la Medina yelloo mu def ko ci gàmmu gi moom ak ay rakkam muy Cheikh la Baba Lamine ak Cheikh Mahamadul Makki mi nga xam ne moo gàmmu gàmmu gi ak rakkam yëpp toujours dañuy wax ñun duñ ay doomi baay ay taalibe baay lañ te baay daf ñu daa wax nañ taalibe yi moom ñooy ay doom doom yi ñoom ñooy ay kon bon ñun suñu wàllu bopp li ñuy tiitaroo toujours rek mooy que ne ay taalibe baay lañ waaw ndaxte baay daf na ida saara xayra nas surtu waraahu fa in xalla yaman fal masiru baidun ñun tam bëgg nañ fépp foo xam ne rek teg na fa tànk alhamdulilah ñu teg fa tànk muy yoon yoo xam ne moom la ñuy suñ borom bi digal moom lañu suñu borom bi tere ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xatuwaat yi nga xam ne ci la nekkoon ak Mawlana Cheikh Ibrahim xatuwaat yi nga xam ne ci la nekkoon ñun tam ñu nekk ci ñu gërëm na kër diine yëpp comme ni ko suñu mag waxee Seyda Yacine mu nekkoon relation boo xam ne Baye amoon na ko ak Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma amoon ko ak bépp euh, kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi nekk muy Tiwaawoon muy Njaasaan muy Laayeen muy Canaba bi nga fàttaliku ma ci ay diggante Cheikh Ibrahima radiallahu taala anhu sëñ Cheikh Mbacke sëñ daan na fii benn gàmm boo xam ne daf ko daan def fii nii boori fànn baraxlu yu na ko def fii nii ci boori kii bi ci boori raay bi fii ci këram gi nekk foofu su toogaan ba xaaju guddi dinaa ñëw seet si bàyyi moo xam mu nekk Mérina moo xam mu nekk fii nii ci kër gi muy coopérative coopérative gi mooy fi bàyyi mujj gàmmoo gàmmuwaat avant muy dem London sëñ Cheikh Mbacke daan na ñëw su ñëwee toog bàyyi ci biir néeg bi ñoom ñaan ñuy waxtaan di waxtaan di waxtaan di waxtaan di waxtaan ba minuit jot wala une heure jot ci guddi wala deux heures du matin jot ci guddi su ko defee bàyyi suy sëñ Cheikh Mbacke dem bàyyi dina jóg sol dàllam génn dugg ci oto bi ànd ak moom ba ci deuxième pompe Médina bi waaw su ko defee sëñ Cheikh Mbacke na ko yemal fii suy bàyyi di na sëñ Cheikh Mbacke itam toppaat ci gannaaw gunge ko moom tam àgg ci booru marché Médina bi. ñu ko dugo def noonu di ko def noonu di ko def noonu ba ñuy waaju noonu du fajar su ko defee bàyyi na ko nañ ñem fii kenn ku ci nekk na dem alhamdulilah man mii soo wàll bopp daanaka bàyyi daf maa yëkkati woon jox ma sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma yëkkati suma doom yi tànt ku ñu wax ak sëñ Abdou Khadir ak soxna Jee Mbacke yëkkati leen jox leen Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala te loolu wone li muy wone rek mooy que kër kilifa diine yëpp alhamdulilah benn lañ eh, ñu may sant na taalibe yi mooy moo xam muy murid moo xam muy tijaan moo xam muy laayeen moo xam muy njaaseen moo xam mun la mën di nekk ne nañ jàpp suñ xol yi raxas suñ xol yi jàppante nekk benn comme ni ko suñ borom bi tabaraka taala waxee moo xam muy bépp jullit waxtasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu wadkuru nicmatallahi aleykum in kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nicmatin ixwanan mooy que nañ takkante ci buuru ci buumu yàlla gi buum gi nga xam ne gi boom la comme benn kurus buñ nas ci ay per benn buum buñ jël nas ci ay per kurus ah, ñu takkante noonu nekk benn xam ne ñun ñëpp benn lañ mooy xablullahi tamit jamian te ñu bañ a tàggalu ko bañ a ŋaayoo bañ a xiirante bañ a def dara alhamdulilah rabbil alamin la denk dénk lépp jullit du ko dénk tam taalibe yi di ko dénk sama bopp mii man man nga xam ne mii alhamdulilah maa ngi ci maa ngi koy bopp di ci gën a eeslu ci lool di sant yàlla itam alhamdulilah di ko dénk bépp jullit sant sant yàlla bi réel kenn xamul nag nu ko mën a firee waaye comme Baye dafa oote eh, loo xam ne li jëm ci suñ borom bi tabaaraka wa taala moo xam muy Nigeria moo xam muy Tchad moo xam muy Soudan ñun ñii suñu wàllu bopp comme man sama wal bopp daanaka Darfour laa gën di nekk Darfour laa fare te gis naa itam ay soldaal yoo xam ne ñëwoon nañ Darfour nekk ci casque bleu yi wax dëgg yàlla bañ demee ba Darfour ay Sénégalais lañ waaye. population Soudan bi dañoo jàppoon ne ñii kat ay euh, duñu ay jullit di leen maltraité ci marché bi ñu di leen maltraité ba yàlla def ñu dugg ci biir ay boutique gis fa ay photo Baye Sénégal yooyu wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne ñu ay chrétien lañ am na ci ñoo xam ne ay jullit lañ ay tijaan lañ na ci ñoo xam ne ay murid lañ ndaxte Sénégal benn bopp la kenn du leen xaajal ñëpp benn lañ alhamdulilah rabbil alamin xamuñ kii lii la wala kii lee la wala kii lee la ñëpp benn lañ te loolu. mayeeg yàlla moo ñu ko may dañ fa demee ba gis loolu yi te wax dëgg yàlla dañoo toog di xool photo bi nii waa Soudan yi ndax da ngeen a xam kii ñu ne lañ ñun waa Sénégal lañ ñu fonk leen def leen comme seen bopp même euh, région yi nga xam ne yi amul ay zawiya walla amul làmp militaire Sénégal yi taxaw fa def euh, làmp defal leen euh, juma bu ñuy jullee defal leen yenn côté yi ñu defal leen fa ay zawiya te loolu yëpp li ko waral mooy Mawlaana Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhu ndaxte nit ku jóge ko fii dem di àtte ji loo xam ne day xay la wala musiba la fekk borom ay yooyu ñoo ñu jël la teral la ngir lan gi benn jëmm muy Mawlaana Cheikh Ibrahima mu yàlla ak yonent bi ak Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhu loolu day na sant yàlla bu baax eh, taalibe yi nag wax dëgg yàlla seen bëgg-bëgg yëpp mooy Cheikh Ibrahima xamuñ lu dul Cheikh Ibrahima waaw xamuñ lu dul Cheikh Ibrahima ndaxte ci loolu lañ leen yar loolu lañ xam loolu la seen maam yi nekkoon loolu la seen maam yi nàmp fu mel ni Nigeria <clears throat> gis nañ fa bàyyi na mu fa taxaw woon ci guerre yi Biafra bi fu mel ni itam ay Cameroun waaye Tchad ay Soudan gis nañ Cheikh Mouhamed El Mahi Ibrahim Niass ñi nga xam ne dem na fa temps yi ci gannaaw euh, deman na foo xam ne fii yàgg naa fa am dem man depuis 2008 euh, maa ngi fay dem. daanaka presque daal euh, su yeboo man la depuis vingt cinq ans maa ngi dem côté Darfour mais su ma demaan itam wax dëgg yàlla ni ma gisee nit ñi nekk foofu doo xamee ndax kii taaliba loolu kii taalibe Cheikh Mahamadul Baaxi itam ba mu jógee dem fa wax dëgg yàlla fekk nañu nekk ci yëngatu yoo xam ne yëngatu yu métti la réew ma xaw naa jaxasoo waaye ba mu fa demee itam taxawaay ba mu fa taxawaay mooy comme taxawaay moo daana Cheikh wala radiallahu taala anhu boole na xeet yi fa nekk yëpp parce que Darfour ci boppam rek am na quatre-vingt-dix-neuf yu fa nekk waaye Mawlana Cheikh euh, Mouhamad al Mahi Xaadim al Xadra demee euh, dajale na ñëpp ba kenn ku ci nekk yëg ne yow mii sa bopp yow yaay kële kële itam mooy yow loolu bëri wàññeeku na fa xëy na nag alhamdulilah gannaawam <clears throat> am na yeneen xew-xew yu fa xew mooy xew-xew yi ñuy dégg nii tool itam duñ def rek lu dul tàll suñ loxo ñaan yàlla yàlla fay. musiba yooyu am foofu noonu ci jàmm ak salaam ndaxte ak lu métti métti métti métti wax dëgg yàlla taalibe yi jóg nañ ñëw wuy si njabootu Mawlana Cheikh Ibrahima mooy taalibe yi fi nekk ak njabootam ci wàllu bopp njabootu ruuxam ak njabootu mooy taalibe yi ak doom yi. alhamdulilah alamin sant yàlla doom bàyyi daanaka mi ngi mel ni loxo bu def juróomi baaraam nii soo ko dankee day nekk benn baaraam doom bàyyi yëpp alhamdulilah. seen jëmukaay benn la seen xalaat benn la seen euh, yitte itam benn la seen xalaat ak seen yitte yëpp mooy boole xol yi mu nekk benn takk takkandoo suñ biir jàppante suñ biir bëggante suñ biir kenn ku ci nekk su gisee mbokkam wax dëgg yàlla day mel ni daf ko bëgg a jël rek dugal ko ci gémmiñam benn yoon mu jeex ah, loolu nag euh, mahabbat Cheikh Ibrahima li liñ jàppee suñ bopp daal ñu doom bàyyi ay taalibe lañ jàppee seen bopp képp ku ñu gis ci doomu bàyyi dañuy naan kii mooy doomu bàyyi man mii taalibe la su ko defee nga jox ko cër bi nga xam ne moom lañu ñu bàyyi dénk ne xale yi nañ yërëm mag ñi nañ jox cër mag ñi mag ñi nañ yërëm xale yi loolu la doomu bàyyi nekkee wax dëgg yàlla am nañ benn group sax boo xam ne bii dañ naan doo groupe bi doomu bàyyi loolu lépp waxtaan suñ biir la xaj na dëgg la dina dinañuy toog tuuti jotaay bu bari bi amul boo xam ne bi dañuy toog ñun ñëpp ci benn place ndaxte dañ naan euh, ku ci nekk yaa ngi occupé daal sa place euh, terewul nag ñu jokkalante ay téléphone téléphone su gàmmu bay jotee yéen ñi dem Nigeria gis ngeen doom bay ni ñuy nekkee doo xàmmee ndax kii doomu bay la wala kee taali bay la wala kii leneen la ñoom ak taalib yi fay daje yëpp daanaka alhamdulilah dañu mel ni comme mburu ak soow kon man loolu sant yàlla bu rëy rëy Euh, alhamdulilah rabbil alamin loolu itam euh, mayeeg yàlla ak mayeeg yonent bi mayeeg Cheikh Ahmed Tidiane ak mayeeg Mawlana Cheikh Ibrahim yar bi xam ne moom lañu Cheikh Ibrahim yar parce que Cheikh Ibrahim jàngeewul ci bitti ci biir réew mi fii la jàngee waaye soo seetloo liggéeyam daanaka ci bitim réew la ko di def moo xam muy Mali gi wala muy saral yoon wala muy Burkina Faso wala am na sax téere boo xam ne daf ko bind ba tuddee ko Rihlatul Conakry mooy yoonam yi nga xam ne bii dem na ay Conakry jaar Mali jaar foofu yëpp dem ba Nigéria dem ba kii ay Nigéria dem ba Kano dem ba foofu yëpp te mission yi nga xam ne moo daan dox yëpp mooy jéem a dajale jullit yi ñu nekk benn ba intégré africain jéem am nga xam ne jullit ñëpp dañuy takkoo nekk benn lii du am fii lii du am fële nekk benn loolu moo nekkoon Mawlana Cheikh Ibrahim te soo seetloo ci jamonoom aussi daan na def <clears throat> heure bu julli jotee. moo xam muy korité moo xam muy tabaski moo xam lu mu mën di doon bala def dara day téléphoné Gambie laaj leen ndax gis nañu weer wi wala mu téléphoné Mali laaj leen ndax gis nañu weer wi suñu ko ne gis nañ ko mu téléphoné Mauritanie ne gis nañu weer wi ba pare laaj kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk biir Sénégal tam su ko ñaar ñett gisee itam ñu dog alhamdulilah loolu moo nekkoon mission Cheikh Ibrahim doom yi te wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk jàng nga alxuraan ba mokkal Euh, ñii def nañ formation boo xam ne bi Égypte lañ ko defee ñii defee nañ ko Maroc ñii defee nañ ko feneen ñu ko defee nag alhamdulilah rabbil alamin kenn ku ci nekk yaa ngi jóg di gën a tasaar li nga xam ne lii moom la Cheikh Ibrahima moo def nag di ko jéem a yee salaatal maanaam gën koo dëgëral fasanti kolla dëgg ak nit ñi ñun amuñ dara loo xam ne mën nañ koo yokk ci li li nga xam ne lii Cheikh Ibrahima liggéey na ko ci bitim réew xanaa dañuy dem rek yeesal kóllëre googu ak taalib yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ak ñi xam ne du taalib yi te soppe yi ñu nga fa am na ci xam ne duñu ay jullit am na xam ne ñu ay jullit la waaye képp koo xam ne kii dem nga beneen man Sénégal laa jógee li ñu wax mooy ndax xam nga Kaolack soo nee Kaolack laa dëkk ñun la Cheikh Ibrahima soo nee Cheikh Ibrahima itam doom la am na un jour ñu ngi ànd man ak soo benn xarit suma mag suma lépp suma soppee mu koy wax euh, Baye Cheikh doomi Cheikh Tidiane Niass la ñu demee Nigeria dugg ci benn oto fekk waa jaa ngi taf euh, photo ci oto bi noonu euh, Baye Cheikh daal ne chauffeur bi dis the son of Cheikh Ibrahim waa xoolaat xool photo bi daal nañ no your lie dis the prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anybody put it for a car you cannot uh, break it you cannot do anything nobody can take it ne ko daal kii yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam wala ci saxaaba yi la <clears throat> ba xam ne photom bi ku ko jël def ko ci sa oto oto bi du accidenté li ñu sàcc oto bi dara du ci nekk ñuy reedaan a bàyyi cheikh waa yi daal di wëlbatiku nañu moom christian la waaye nag ñun suñu bopp xamuñ kii danaan kii doomi kii la wala kii bàyyi kii la donc euh, loolu rek alhamdulilah sant na yàlla bàyyi kenn mënta wax ci moom lépp xanaa dañuy làmbati nii di wax rek waaye sant yàlla bu baax a baax a la tam li euh, ci suñu xalaat ñun suñu wàllu bopp euh, delloo rek wax euh, alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla bàyyi relation bi nga xam ne moom la amoon ak réewum Sénégal moom la amoon ak réewu Mauritanie am ko réew Afrique yëpp moo xam muy Mali wala Burkina wala feneen feneen wala Gambie gi nag fépp foo xam ne fii dara amoon na fa dina jóg jël loxoom def ci wala mu jël gémmiñam def ci wala mu jël ay tànkam def ci dox ko ñun nag fi mu nekk nii comme dañoo toll fii nga xam ne fii fii la réew mi toll actuellement du réew mi sax waaye àddina bi yëpp moom moo toll ci ay jafe-jafe yi nga xam ne ñu nekk nañ ci fi mu nekk nii li nga xam ne daal moom laa mën a dénk sama bopp dénk ko bépp jullit wala bépp doomi aadama rek nañ delloo suñu xel wax alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla eh, réew mi nag wax dëgg yàlla dara ñu lu sant yàlla ndaxte yàlla mooy borom euh, nguur kon ni ñu wax ci alquran qul illahumma maalikal mulk tuutil mulka man tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tadhillu man tashaa bi yadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir yàlla moom nguuram mooy joxe nguuram mooy seet ku ko neex mu jox ko ko lu koy bu muy wàcce mooy seet la muy wàcce mu wàcce ko dëgg la àddina bi waar fi mu nekk nii loolu réewum Sénégal itam alhamdulilah rabbil alamin doy na waar fi mu nekk nii ñu nekk nii wax ji bëri na coow li bëri lépp bëri na waaye sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin parce que yàlla def na suñ ko santee mu dolli ñu waaw suñ ko santee mu dolli ñu in shakartum la zidannakum yàlla ma ko wax ci alxuraan kon sant yàlla la ñuy def addina bi nag fi mu nekk nii ñëpp bépp naqadi lu Sénégal gi ñu nekk nii rek ñu may sant daal euh, di ko sant population Sénégal euh, ñun ñëpp daanaka kenn ku ci nekk rek mën nga wax ni président nga sa bopp président yi réew mi ngi parce que su fekkoon ne population bi dañuy tabax gouvernement bi di toj tabax yu guddi population yi tabax bëccëg gouvernement bi toj guddi su boobaa yaakaar naa réew mi di jëm kanam su fekkee ni itam gouvernement bi dañuy tabax bëccëg bi population bi di jóg guddi di toj tabax yi dara du avancé ci réew mi. ñun en tant que ay doomi Sénégal <clears throat> dañoo war a gën a Sénégal gi suñu senegal lañu ñëpp du Sénégal yi kenn ci ñi nga xam ne ñoo passé muy Senghor wala muy Abdou Diouf wala muy Ablaye Wade wala muy Macky Sall wala muy Sonko mi nga xam ne moom moo fi toog actuellement yàlla teg ko fi ci jàmm ak salaam alhamdulilah rabbil alamin eh, du réew kenn ci ñoom ñoom liñ nekk rek mooy suñu ay njiit lañ yàlla leen fi teg mu ñu si ay njiit kon boon ñoo am nañu responsabilité ci réew ñun ñii suñu wàll am nañu responsabilité ci réew mi waaye dañoo war a jóg takkoo nekk benn takkaayu duñu xaar gouvernement bi ci dara gouvernement bi dañu xaar population bi ci dara kenn ku ci nekk jóg lu def li nga xam ne lii mooy sa warukaay defal suñu réew defal suñu région yi nekk rawatina suñu Kaolack yi nga xam ne bii fii lañ nekk ñun ñii suñu wàll bopp suñ seetloo Kaolack bu njëkk par rapport ak léegi am na daanaka dafa arrière daal jëmul kanam bon te loolu population yi Kaolack ñoom ñoo war a jóg seen wàllu defar Kaolack kenn ku ci nekk fa nga nekk nga defar parce que bala ngaa bale buntu kër jàmbur baleel sa buntu kër si biir kër ba pare euh, Kaolack mooy suñu kër mooy suñu de région boo xam ne fi lañu nekk kenn ku ci nekk war ngaa jóg jëm koo wax comme ni ko Cheikh Mouhamadul Mahi waxee woon eh, ne doomu mbir na ñoom ñoo war a defar mbir na bàyyi surtout mbir na gi ñu nekk. suñ duggee biir na gis nañ mbedd yi ni mel nga dugg biir Saam gis mbedd yi ni mel taw bi nag bëri na lool alhamdulilah te loolu yëpp ci suñ borom bi tabaaraka wa taala moo ko wàccee kon man sant ci yàlla ci loolu am na réew yoo xam ne taw ba nam fa def ak lam fa yàq képp koo gis wala képp ku dem ba fekkee ko waaw ah, soo ñëwee Sénégal bi gis li am Sénégal mu doo def lu sant yàlla réew yi nga xam ne rek am nañ euh, <coughs> ay ndox yu bëri ay inondation ba nga xam ne bi kër yaa ngi daanu nit ñaa ngi dee ci taw bi nit ñaa ngi dee ci kii bi falo beeg yooyu yëpp ñu ngeen di ñaanal yàlla ñu ci seen bakkan génn yàlla neen yàlla xaraal jànn ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, réew mi itam yàlla na fi yàlla def jàmm ñi nga xam ne ñooy ndaw yi bëgg liggéey yàlla neen yàlla may luñ liggéey kàtt luñ liggéey ak fan gu dëg wér gu yaram li nga xam ne yéene nañ ko ci réew mi yàlla may ñu mottali ko ak jàmm ak salaam euh, gouvernement bu bees bi nga xam ne itam ñoo ñëw muy Sonko ak Diomaye wala Diomaye ak Sonko yàlla may leen kàttan boo xam ne bii nañ li nga xam ne moo nekkoon seen yéene ci mi ñu def ko ba am ci ndam loolu la ñuy ci ñoom loolu lañ leen di ñaanal yàlla comme yàlla leen fi teg kenn mënul xëccoo ak ñoom ñeen def rek mooy ñaanal leen yàlla ñu def seen mission nga xam ne moom leen ñu def su élection yi jotee nag képp koo xam ne ki am nga sa carte ah, soo mënee sànnil ku la neex nga dem sànnil ku la neex waaye kenn du loo wax ne sànnil ma sàmm wala sànnil ma dem ba loolu moom que population bi ñoom ñoo kii loolu daal lay dénk suma mbokk yi suma rakk yi suma mag yi muy euh, sénégalais en tant que sénégalais nekk fii man nag nekkuma fii maa ngi yore benn initiative de la paix au niveau de Darfour entre Darfour ak euh, Tchad depuis 2008 ba léegi ci daanaka chaque année ci lay dem foofu lay kooree fa lay tabaski alhamdulilah rabbil alamin ba gàmmu lay ñëw bi ma ñëwee ça fait ay dix jours ak yi kon bon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla may ñu ñu fekk ko ay déwén déwén déwén ak bépp jullit ci barke alxuraan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla may ñu kàttan boo xam ne dañ ko mën a teeroo suñ mbokk kaneen yi itam yàlla. defal leen tawfeex bi seen euh, tabax bi pare ak euh, képp koo xam ne kiy jóg nga pour tabaxal néegi yàlla wala nga jóg pour liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga fas yéene pour defal ko yàlla lay la kàttan moo ko defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke alquran ci barke Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhu yéen waa presse bi tam ñu ngi leen sant di leen gërëm euh, bàyyi ngeen seen lëpp tëj ngeen seen kër yi bàyyi seen njaboot yi bàyyi seen di ngeen am yëpp seen biir kër yi tëj seen bunt def seen caabi seen poche jóg di dox boobu ak léegi bañ commencé préparer gàmm gi ba léegi te dara taxul du dul rek euh, dox jàmm ak salaam ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak bëgg xadara bi ba fu nekk ngeen dem fa di interview nit ñi loolu itam ñu ngi ciy am mbégte bu baax di leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla may leen barke bu bëri yokk seen maqaama ci kaw. fi ngeen bëgg a yóbbale àggale presse bi Sénégal bi mu àgg fa ak jàmm ak ci barke alxuraan seen euh, directeur bi tam yàlla may ko fànn ku dëg wér gu yaram yàlla def jàmm ci réewum senegal ñu naan rek ci kanam toujours fi ñu mën di nekk kono ma daalika ala llahi yasiir alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullah